الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على مجمع شؤونه وحقيقة كنه سره سيدنا محمد بهجة الكون وديائه wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci réew mi ak ci bitim réew tan leer ak jamono di ko leerloo muy rajo télévision bu wal fajri fu ngeen mun di nekk ci àdduna bi maa ngi leen di boole ti juróomi baat yi ñu yàlla boole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 ñaan yàlla génne leen ci xat-xat ya ñu nekk di ko jagleel suñu mbokk yi nekk ci hôpitaux yi ñaan yàlla saafara leen saafara go ànd ak dundu di ko jagleel suñu mbokk yi ambulant yi di wër di jaay yàlla dem ba may leen ay magasin ñi leen ni wër ñiy jaay di ko jagleel suñu mbokki pël yi ci caawo gi kenn ku ci nekk ci ñoom bëgg dégg jarga yalla yalla def len ay jarga yu mag ñom timit di ko jox suñ mbokki commerçant yi ak suñu mbokk yi ci jaga njaay yeeg car rapide yeeg tata yeeg otoraay yi fuñ mundi nek ci aduna bi yeen ñepp rek ma ngi leen di nuyu waxon na la ci suñu waxtaan yi yepp passé l'islam ak julli yu am solo yi mu ëmbu ben ben la loon na la ko ak solo yooya julli am yii nekk yuy kafaara ay bakkaar yii nekk yuy faj ay xaajo yii nekk yuy nangu ak tuub sa digganteeg sa borom yii nekk yu lay ajjil ay soxla yu takk yii nekk lu lay jotale sa xememteef ak sa bëgg-bëgg julli nag li ñuy foor foor dafa am palaas yi ñu tànn muy fukk ak ñaar yoo xam ne lu jullit bi mën a mën a julli na moytandiku place yooya mu di fa julli place bi ci njëkk tere nañ ci ab jullit muy julli ci kaw ab armeel armeel dëkkuwaayu nit la yonent bi dafa ko daan tuddee xubus la la feeg borom mang fa kenn warta taxaw ca kanamam kenn warta taxaw ca kawam kenn waru caa toog kenn waru caa dëgg di jàll di dem kon tamit dañuy tere ci ab jullit lu mën a mën a julli muy taxaw ci xaba xabru di julli ca kawam mbaa mu jublu mbaa mu julli di jublu ab xabru mbaa mu julli fekk ma ci mi ngi ci xabru bi boo ibnu abbas mo solo jele ci yonantu bi mu ne bi de mo waxoon la tusallu ila qabrin bu len julli jël ab qibla ab ab qabru def ko muy sen qibla ngeen koy jublu koku moy julli jublu ci qibla motax ila la jalgate benen bi nak dafa ñuy téré ñu julli ci kaw qabru fekk yow ya taxaw ci kawam di ci jublu hadith bobu tabarani moko solo yonentu bi ne wala tusallu ala qabrin bu len julli ci kawab qabru kon julli jublu qabru l'islam tere nako julli taxaw ci kawab qabru l'islam tere na hadith bi nga xam abi mursid moko indi imam ahmad solo nako bo demé ci muslim dang ko ca fekk bobu dafa ne laa tusallu ilal quburi ba fa ko jamo jamo taksir bu leen julli du jublu ci xabru yi mu teg ca tamit ne wala tajlisu alayha bu leen toog tamit ca kawam kon xabru kër ak jàmbur la kër ak jàmbur waroo toog ca kaw kër ak jàmbur waroo taxaw ca kaw kër ak jàmbur waroo taxaw rek jàkkaarle ko te amuloo ndigal ca boromam moo tax yonent bi dafa daan wax ne yàlla na yàlla rëbbu yahood yi ñu ne ko lutax mu ne japp nañ seen qabru ya def ko muy ay jakka abi hurayra mo solo hadis bi mu ne yonantu bi ne laana allahu yahuda ittakhathu qubur anbiya'ihim masajida imam muslim mo gene hadis bobu mota hadith yepp nak yëpp tere la ndax bo ki gis la yinahyu la la tusallu ila al qubur la yinahyu la la tusallu ila ila qabrin la yinahyu la wala tajlisu alayha laa tusallu ala qabrin yooyu yëpp laa gi laawu nëx yu la moo tax xasaf nuun lay jasamee waaw googu nga gis mooy faanil ji su ko defee nag nëx yu gi kon xas na ñu ne nëx yu lan la tere gi moom dafa nekk tereg xaraam wala dafa nekk tereg sibeel foofu la boroom xam-xam yi coow nag ñu ne nëx yu gi nëx yu tahrim la ñu ne nëx yu gi karaahiya la ñu jàpp ne nëx yu gi nax yu taxrim la maanaam julli ci kaw xabroog julli dëgmal ko yàlla yonent bi tere na ko tere goo xam ne tereg xaraam ko ku mel ni eh, jumhuru fuqaa wa xanaabiliina yi mbooleem ñi aju ci ay ngiru imaam Ahmad ibnu Hanbal ñoom ñëpp dañoo jàpp saayiru hadis bi rek ne tere gi tereg xaraam la ku ko def def nga loo xaraam waaye xanafiyuuna yi ak saafiyuuna yi ñoom ñëpp dañoo jàpp ne tere gi daal dañ ko siib rek boo ko bàyyi daal moo gën waaye boo ko defee tamit amoo ci benn bakkaar julli fekk yaa ngi ci xawab xabru julli fekk tamit yaa ngi julli jàkkaarloo ab xabru sib nañ ko rek waaye ala kulli haal benn bakkaar nekkul ci loolu la saafi yu nay gëm xanafi yu nay tamit loolu lañ gëm xanaa biloona lu rek ñoo wax ne tere gi tere maanaam euh, xaraam la imaamu Malik tamit ak Maliki yu nay yëpp. dañ la téré gi téré sibil rek la su ko défé kon nak hadith ba ngok amna sax benen xaj bu wax ne sax julli jublu ci qabru daganna julli ci kaw qabru ba daganna ñi wax ne dagan na ñoom dañoo jël hadith bi bi yonent bi ne yalla defal na ma suuf lépp muy lu laap defal ma suuf lépp muy jakka ñu ne kon xabru yi ya ca jàkka ya ci suuf ya la di te yonent dafa ne rek wa lil ardu tahuran wa masjidan yàlla defal na ma suuf lépp muy lu laab defal ma suuf lépp muy jàkka xutee xeet ya ma jiitu woon ñoom de ke seen jàkka yañ tabaxon dong lañ mën a julli nekk fa waaye buñ jullee ci seen bureau yi mbaa ci seen tool yi mba ci seen i tukki ma fuñ mun di nekk bu ñu bu leen julli dabee fuñ ko mën a defee du mën a wér moom daal seen jullee ca jàkka ja rek tax yonentu yàlla Ibrahima di ñaanal wa jàkkam ja rabbi xfir li wali walidaya wa liman daxala baytii yonentu yàlla ibrahima ak nitam ña ca jàkka ja wa is yarfau ibrahimul qawaida min al bayti wa ismailu yonentu yàlla moussa ak nitam nga ca jàkka ja ijaalu buyutakum qiblatan demeet waaye nag julli suuf lépp di jàkka ñeexal la foo ca fekk muy lu laab mën nga caa julli kooku xeetu yonentu bi rek ñoo ko jagoo ñu jàpp nag xadis bi bàyyi ko ca umumi yetu ñoom dañ ne fi lépp suuf daal fu ca laab rek mën ngaa julli ñenn ñi nag ñoo ca génnee fukki place ak ñaar tere na waruñ caa julli xanaa bi luy na yi tere ga tereg xaraam la Malik ak Saafiyu ak Ahmad ibnu eh, Abu Hanifa ñoom ñëpp ak seen mazhabi bi ñoom ñu ne tere ga tereg si biir rek la waaye boo ko defoon tamit amoo ca benn bàkkaar ñaareel bi tere nañ ci ab jullit buy julli na fi bàyyi xamaam xamaam nag suñu mbokki naar yi moof lay am boo demee Égypte dang ko fa fekk soo demee Maroc da ko fa fekk ay place la yoo xam ne dañ fay dugg di sangu am na ndox mu tàng am na ndox mu sedd am na ndox mu nugg sangu fa dana dàq jàngoro yu bari sanguma lu seer la leg leg nga fay ñett junne leg leg nga fay ñent junne fofa ca Maroc pour mëna sangu lola mu melni ni ay tapé la ñuy tangal nga tim ko dana génné xéti jangoro yak deret yu wow nek sa yaraw wi fofu la ñu tuddee place la bo xane pour mu ci sobé day jafé soko don misal ki suñu réew wi dal mooy toilette yi nekk ci gaaru ceer yi wala mu nekk ci marché yi wala mu nekk ci hôpitaux yi ku dugg sa morom génn ku génn sa morom dugg yooyee palace muy li muy mucc ci sobee dafay jafe moo tax ñu tere ku fay julli moom ak tamit xarmeel yi moo tax boo gisee xarmeel yeeg bàmmeel yi tere ku fay julli ñaareel palace la yoo xam ne tamit nit ñaa dugg ko génn léegi-léeg sobe mën na faa nekk yooyu tax maanaam ñu di ko tere waaye nag buy xamaam mom sobe man na fa xam waye en même temps tibi dañ place ba tappuwaayu tilim la tappuwaayu shaytané la te julli dafa nek lu for place bu lap makan bo bu ama am xayma la lañ koy wara mëna défé kon téré nañ ab jullit muy julli ci hamam waxna la ko ci réew yi la am soko don comparer ak suñu réew yi mooy toilettes yi nek ci marché yi ak ci garu yi ak ci hôpitaux yeeg yu mel noona tere nañ ci ab jullit fu ñuy rendee ay xar walla ñu fay rendi ay bëy wala ñu fay rendi ay nag wala ñu fay loj ay gëléem ñu koy tuddee maanaam majji sëratu dañuy tere ab jullit mu di fa julli ndax foofa tamit palaasu sobee la deret joge di sotteeku deret juy puufu la yooyu yëpp kenn waru fa julli jumóorul fuqaaw yëpp d'accord nañ ca loola tere nañ ci ab jullit muy julli ci maanaam ab santeer mooy ab sët ab sën sën nag ba ca gën a dund moo gën a bon ndax bi gën a dund moo gën a bëri mbalit ta mbalit ma yëpp sobe la ba ca gën a dee moo tene ndax sën bu demee ba tuuratuñ ci mbalit mbalit ma ci njëkkoon a tuur mën naa dem ba dee bu yàggee mën naa dem tamit ba laab waaye ba cay gën a dund moo ci gën a bon dañuy tere nga julli ca juróomeel bi dañuy tere ci ab jullit mu julli ci yoon yoon wuy nit ñiy jaar dal di rombu di fa bàyyi sobe place la bo xamne ne pour mu mukki ci sobe fay jafé da ngay tere ab julit mu julli fa tere nañ fi gëléem yi di gor gëléem fu mu tëdd ba juk nga di fa julli dañ koy tere ndax gëléem ñaarel euh, fu mu tëdd rek euh, bàyyi fa dara ñaareel timit sen gooruwaay yi man euh, nañ fa bàyyi ay nefre waye man nañ fa bàyyi ay manam mën yu ndax ñu ne gëléem timit day gis moo tax kon tamit julli dañuy tere mu julli ci góoro waayu gëléem gétt ak nag nag mën nga cee julli gétt ak xar mën nga cee julli gétt ak gëléem gétt ak maanaam euh, nag yeeg bëy yeeg yooyu mën nga cee julli ndax lépp luy dunde sobe ay kabineem duul sobe am tuuru ndoxam duul sobe gëléem tamit tuur euh, géttam gi ca kabine ya mën nga caa julli waaye nag fa mu tëdd moom dañuy tere nga julli fa ngir daw mën na faa bàyyi lu mel ni mëniyu ak yu mel noona waaye fuqaaw yi dañuy wax ne lépp loo xam ne dagan naa lekk te dundeewut sobe rek ay gëddem wanagam ak ay tuur ndoxam laab na su fekkee ne nag daganut lekk ay tuur ndoxam ak ay kabineem sobe la mu mel ni fas yi ak bax la yeeg mbaam yi ci masabu Malik euh, waaye nag su fekkee tamit dafa xaraama lekk ay kabineem tamit ak yaay sawam yëpp sobe la bu sibee lekk nag cabine ya ak euh, ndox soow ma kon ak yooya dañ koy soow ma dañ koy sib yu mel noona bi ci tegu juróom-benneel ba ba juróom-ñaareel ba tere nañ nga jublu ci kaw Kaaba ga Kaaba gi dañ ko war a jublu waaye boo xasee taxaw ca kawam jublootoo fenn te alquran dafa ne wa haythu ma kuntum fa walloo wujuhakum shatrahu yow nag boo xasee nekk ca kaw Kaaba ga jubloo jublootoo fenn moo tax Malik ak boppam muy tere kuy julli ci kaw Kaaba ga imaamu Malik tere nañu julli ci kaw Kaaba ga moo tax mu ne laa yajoosu salaatul fardi fawqaha loolu la imaamu Malik gëm euh, mu ne nag su fekkee julli ga julleeg naafila la ba tey tere nañ la ko moo tax mu ne boo jullee julleeg farata ci kaw Kaaba gi julli ga yàqu na dañ koy baamu abadan fa ida salla fawqaha fardan waqaat salaatuhu baatila wa wajaba alayha wa wajaba alayhi eh, su ko defee kon nag bu fekkee naafila nga ca def nag ñetti wax ñu ne buy naafila am na ñu ne comme farata rek ca àtte la yàqu na ñenn ña ne na ñenn ña nañ ko saafi yu moom dafa ne julli ca kaw kaaba ga julleeg farataak naafila yëpp ci am dara nekkul ci daganna na waaye daal na nga jubleeg dara ca tabax ba rek donte toll naa ñaareelu euh, maanaam sulusi xasabu xanafi yu ne yéen julli ca kaw kaaba ga farta wér na buy naafila wér na dara nekku ci dañ koo sib rek euh, ñi nga xam ne nag ñooy tegtale ne kaaba ga kenn waru ca julli dañ koo tere bokk na ci juróom-ñaari place yonent bi tere woon mooy hadis bi Ibnu Maaja solo ah, ñu jëlee ko ci yonent mu bokk ci hadisu Tirmisi moom tamit mu bokk ci hadisu Ibnu Omar yonent bi ne naha an yusalla fi sabaati mawatina fi lmasbalati walmajsarati walmaqbarati wa qaariati tariq wa fi lxamaam wa fi aataani l ibili wa fawqa dahri baytillahi lxaram lii la yonent bi wax ba muy lim juróom-ñaari place yi tere ñu julli ca boole woon na Euh, kaw kaaba ga ndax boo ko boo ca taxawee di julli jublootoo fenn tere nañ ci ab jullit muy julli di jublu ci am miir boo xam ne dafa am sobe miir bi ngay dakk daal miirab sobe la mi ngi mel ni miiru toilette la nga jël sa sa sa xarxaram bi dakk ko ci miir ba mooy ji daarul mirxaat daal tere nañ ab jullit di julli jublu ko kere ga nak manam tereg si rek la ngir wax ji Abdullah ibnu umar waxone wala yusalla lil hashi wala yusalla lil hash hussu nak bu ko arab waxe rek moy place bo xam dañ fay faje aajo motax dañ ko tuddé kanif diko tuddé mirhat halu ibn ibnu Abi Talib tere nako nena la yusalla tijaha hussin juróom-ñeenteel bi tere nañ ci ab jullit muy julli ci ab kanisa ab jàngu fi nga xam ne mbokki nasaraan yi ñu ngi fay màggalee yàlla difa fa di fa jaamu wala mbokki yahood ya yow ab jullit di xamal ci sa jàkka ya ba nga julli foofa sa tusubaar mbaa takkusaan soo jëlee ku mel ni eh, xanaa bi luy na seen ngir mi dañ ne boo amee ay tasaawiir lu mel ni ay stati lañ lay tere nga julli fa tere sibil sax la wax moom buy xanaa bi lu su fekkee saafiya yu na yi ak xanafi yu na yi nag moo xam ay tasaawir mang wala nekkul ca yëpp euh, ñoom tere nañ maanaam nga julli fa tere sibil buy maalik nag moom dafa ne sib nañ ko su fekkee bu ñuy dundal la heure bu nekk ña ngi fay ña ngi fay def di fa euh, def seeni activité waaye su fekkee tuñ ko tëj nañ ko dara nekkut fa nga julli ca dara nekkut ca mu wóoral tamit na place ba laab na dara nekkatut ca naka noon tamit moo tax tey boo demee ci réewi Europe yu bëri am na fa ay église yoo xam ne ay jullite ko jënd mu ngi soppi ko jàkka yi ñu soppi ko tamit ay juma amoon na ci jamono Omar ibnu Xattaab ba ñu togee xa église ba fa nekkoon julli ñi dañ ko soppi juma kon moo tax Malick ne julli ca su fekkee ne tëj nañ ko nekkul ñi ngi defee ay activité dara nekkut ca su fekkee ne activité yi fay def te yow da ngaa loru taw moo la nga dugg fa waxtu wa julli fekk la fa nga julli fa dara nekkut fa su fekkee loru woo nag yaa fa julli ci sa coobare rek Malik imaamu Malik tere na loola. kon euh, maanaam jullee ngoog ak juróom-ñeenti place ya fukkeel ba mooy su suñu fëkk tere ab jàmbur nga fëkk ko ci xol bu tàng ci ñoom waroo faa julli. mo xam dang ko fukk def ko kër wala nga def ko place bu mën don ta te xol ya andun ci bu ca julli su ko defé kon nak moom la al ardul maghsuba eh, tere nañ manam ñi di fa julli mali sax mom ak shafi yok anabiluna yi ñom dañ ne dana wër nga julli ci su fekke sharta ya matna ñi ci dess nak mu melni hanafi yu na dañ ko sip su ko defé timit nak julli ak yére muy yore boo xam ne soie la ñu koy tuddee asawbul xariir dañuy tere ci ab jullit mu di ko jullee rawatina mo buy góor nak lañ ca namu laa yajuusu li rajuli an yusalla fi sawbin xariir fi sawbi xariirin wala ala sawbi xariir lal ab malaanab soy di ca julli mbaa nga sol ko di ko jullee te yow góor nga téré nañ la ko su fekkee nag dafa julli ci moom wala mu julli ci kawam julli ga wér na du ko baamuwaat ndax moom dañ la koo tere woon ah, ba nga julleegul sax nga toog ca ba nga julleegul nga sol ko kon nag boo dëgëree bopp ba julliyaale ko mbaa nga julli ci kawam rek def nga lu ñu tere waaye terewul julli ga wér na mi ngi mel ni ak sàcc rek ku sàggan di julli ah, a waaja rukkoo nga rukkoo ànd ak moom ñaar téeméeram wadd wala ñaari junne nga sàcc ko dugal sa poos ah kay julli ga werna na am nga bakar ndax kat ba nga suubagut ki julli ga tere hon nañ la ko kon bo demee ba soobu ke def ka timit day yok bakar ba rek waye nak du tere julli ga wer kon tudal na la fukki place ak ñaar yo xam ne yi dañuy tere ñu julli ci juroom ñaari place yi la yonent bi tudal bopam yeneen ya ca dess nag di juroomi place ya fuqaaw yi ñoo ko xiyaas te juróom-ñaari place yooya mu nekk xiyaas ak maanaam xiyaasu shabahi muy nirooga walla yenn yenn nekk xiyaasu illa moo tax ñoom tamit ñu jël ko bañ maanaam ku fa ku fa julli naka noonu tamit ni ñi teree koo xamee dañu julli ci yële place julli ci boppam tamit am na yuñ sib yoo xam ne boo xaccee soobu ci julli dañuy sib nga di ko def sib nañ képp koo xam ne yaa ngi dugg ci julli ngay bàyyi benn sunna ci sunnaay julli yi moo xam sunna boo xam ne buñ feddali la wala sunna boo xam ne boo xoyof la di ki allahu akbar ya biir yëpp sunna lañ bu xoyof takbiratul ihram bi rek moo cay maanaam farata ya ca des yëpp sunna yu xoyof la yooyu yëpp dañuy bañ nga bàyyi ko fexeel mu mat yu yuñ feddali boo ca bàyyee benn danga koy sujootal ba maanaam euh, euh, comme da ngaa danga ngaa wàññi da nga koy sujootal xabla salaam yooya nag boo ca bàyyee ñaar jëm ñett ngay door a sujoot xabla salaam yu diisee nag saar ca la bokk ndax saar boo ko seetee ñetti sunna la jàng ga sunna la yeelu ga mbaa biral ga sunna la taxawaay ga sunna la lu ñuy tuddee yeelu ci place bu ñu koy defee sunna su dëgër la soo ko bàyyee day waral su jóot lu ñuy tuddee biral sunna su dëgër la boo ko bàyyee day waral su jóot taaya tamit sunna su dëgër la toogaay ba boo amee ñaari rakkaa ak bu julli ga demee ba jeex sunna bu dëgër la ñii di ko tënkee siinaani siinaani kasaa jiimaani addadu sunna ni samaani sib lañ ci koy julli timit bu xasse duggu ci julli gi mu yëkëti ay bëtam di jëme ci juliam ku dem bay julli am nga lo xol xolal fi nga wara su jor rek motax yonentu bi daan wax ne la yan aqwamun yarfauna absarahum ila as-sama'i fi salati awala tarjiu ilayhim Mune aw nit de buñ bayyi hut di julli yëkëti seen bëtt di xol ci asaman mën naa am ñu xool rek dootuñ mën a xoolati bët bi dootul dellu seeti maanaam rek yàlla jékki-jékki rek demee seen leer ak bët ya xatamallaahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absaarihim gishawa su ko defee tamit sib nañ ko sóobu ci julli ngay gestu gestu ga nag mooy dëddoo xibla waaye boo dëddoo xibla moom julli ka yàqu na def nga lu xaraam waaye ngaa gestu nii rek waaye dëddoo xibla te fekk bi ngay gestu benn ngànt waralut ko kooka def nga luñ sib yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tere waxoon na ko ci hadis boo xam ne abi zarin al ghafari yi moo ko solo moo ko génnee ko jëlee ko ci yonent ba mu ne laa yazaalu llahu asa wa jalla muqbilan ala al abdi wa huwa fi salaati ma lam fa ida altafata insarafa anhu yàlla du dañ di jublu jaam bi fekk jaam bi gestuwul ci julli bu gestoo rek yàlla wëlbatiku xadiisu anas ibn malik moom yonentoo ko waxoon anas ne ko yaa bunayya iyaaka wal iltifaata fi salaati yow sama si ndoom mooy gestu ci julli fa in al iltifaata fi salaati halakatun fa in kaana laa budda fa fi tatawuci laa fi faridati mu ne ko soo demee ba mënuloo ñàkk gestu ci julli na nekk julleeg coobare waaye bu mu nekk julleeg farata Aysatu nee na laajoon naa yonantu bi gestu ci julli mu ne ah fëkk ak rek la dak ixtilaasun yaxtalisuhu saytaanu min salaatil abdi ak sàcc la ak fëkk la guy saytaane fëkk ci julleeg jaam bi moo tax kon boo ko mënee bàyyil gestu kuy julli ba xas dëgmal yàlla nga xam ne yaa ngi diyaaleeg moom nag looy gestootee koy gestooti sim lañ ci julli nga rukkoo di jàng rukkoo dañ fay sàbbaal subhaana rabbiyal azimi wa di soo ko diibalee ñett soo ko gaawalee juróom benn waaye di fa jàngal quraan nag loola sib nañ ko su ko defee timit nag yooy nañ ci bàyyi xel aa ah, moo tax sib nañ timit wak say yére ak wag sa karaw yow kal ne ràpp sa jëbi ci suuf bul sujjoot ki sa kaw yére bi di ko toxal bul sujjoot tamit di tàpp sa karaw sa kanam sa sa karaw gi ngir bañ mu taq suuf ci suuf rek ngay mujj suuf lañ la bind ci ngay dund ci ngay dee ci lañ lay denc kon loo cay ndaw naa xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan oxra loo cay daw te nga fexe ba ne ràpp sa juróom-ñaari cër yi yonent bi dafa ne man de digal nañ ma naa sujootal sama borom ci juróom-ñaari cër yi am na riwaaya bu ne juróom-ñaari yax yi jëba ak ñaari loxo ya ñaari bët woom ya cat tànk ya nii lañ bëgg ab jullit di ko sujjootee sib nañ ci kuy julli muy roflante ay baaraamam muy tashbikul asaabii loo cay rooflante yooyu dañ koy dañ koy tere ci kuy julli mu di ko def sib nañ ci kuy julli muy kotto ay baaraamam tere nañ la ko sib nañ ci kuy julli muy fo ci yëree mbaa ci sikkiñam ca biir julli ga wala moy jël portable ba di fayaka taal bu beure sax julli ga yakuna ko tubaram yak euh, roflante ga bu beure timi julli ga yakuna ndax jëf ju bëri la ju bokul ci julli ga su ko defé sip nañ ci kuy julli muy xol lepp lu koy soxlo walis tudd yalla dañu bëgg fa ngay sujjo rek lañ bëgg nga jël sa bët yi ne ko fa dak waye bul xol lu lay soxlo walis place boba sip nañ ci kuy julli muy gëm ay bëtam melni fa am lu muy gis aynaini fi salati loola lépp dafay tere ak ragallu moo tax ñu la tere su fekkee ne dafa am lu la traversé te li la traversé sax boo xooloon ci suuf fa nga war a sujjóot doo ko gis sib nañ ci kuy julli mu nekk fa tabaarakallaahu di jat ah, maanaam jat jàng ya ah, sib nañ ko dañoo bëgg li nga jàng ci saar wu njëkk wi na gën a kawe bu ñëwee bu ñaareel ba gën a suufe ah, loolu lañ bëgg soo jëlee tamit maanaam nga jat sa xol bi tamit muy nekk ci lu dul julli ga bëgguñu ko sib nañ ci kuy julli muy bébbali ndax bébbali moom saytaane la bu la dalee rek jëlal sa eh, biir loxoom ndeyjoor nga dëpp sa gémmañ bañ a yuuxu bu dee càmmooy bi nag biti bi nga koy dëppee yii yëpp boo demee na koy bàyyi xel kon tasaa ub daal tere nañ la ko waaye tamit di julli di xeddartiku xeddartiku koo xam ne da caa jublu di déggale kooku sax boo demee ci laxdari dafa ne boo fekkee ifhaama tax xaraam na su fekkee loru la dafa am lu tax sa boo liggéey nga bëgg mu jàll kooka moom jéggal nañ la ko. sib nañ ngay julli ñam si ci kanam ñam teg bi boole koog maanaam bëgg a kabaar yàlla bu mu nekk ab siise siise boo moytul xelam ma nekk ca ganaar ya yàlla bu mu nekk reer ab ganaar. loola tamit dañ koy sib moo tax daal yonentu bi daan wax ne bu reer teewee gexe teew jiital leen gexe jiital leen reer doora doora julli gexe ndax kat képp koo xam ne yaa ngi julli sa xel nekk ci reer bu yàqul julli tamit wàññi yoolab julli waaye koy reer sa xel nekk ci julli ah da xam nag yool ci loola ci xelaat nga xelaat julli nga fekk yaa ngi ca reer ba moo gën a dal xel de di reer sa xel nekk ci julli moo gën a dal xel di julli sa xel nekk ci reer kon yooyu yëpp dañ koy sib ci ab jullit maanaam mu di ko def te yooyu yëpp dañ koy bañ ci ab jullit mu di ko moytandiku kuy julli dañuy sib timit ngay jañanteeg nelaw mel ni ku gémmantu bu diisee sax julli ga yàqu na njàpp la yàqu su ko defee nag bu oyofee ba nga xam xamé lu bari bari mom def nga luñ sib rek waye bu disé mom lepp yakuna sib nañ ci kuy julli muy junji xam ko xamné dafa am lu muy laaj nga koy junji ci sa loxo wan ko ne ko ma nga yo yoy yeb sib nañ ko sib nañ ci kuy julli bu ak farata muy takrar fatihatul kitab di ko ñaari yoon bu ci masa bu Malik sax mom boko ko julli ga yakuna bu ci nafilé na nga ko fatiha ja dara nekut ci Ah, sib lañ tamit ci kuy julli muy jaayu di yëngal boppam ni jëru ko looy jàng-jàng jërut jaayu àndal ak dar rek allah bi zikrillaahi tatma innul quluub yàlla tamit mayam yi ci fu dal rek la koy def dañoo bëgg nit ñi nañuy dal dal dafa baax kon yi yëpp leen lañ ci luñ sib ci julli xam naa ci kartanal yàlla boo ma toppee suba ci waxtu wi nag ma ñëw ak yow ci yi nga xam ne day yàq julli ñu koy tuddee mubtilaatu salaati julli dafa foor dafa am ci yoo xam ne boo ko defee fekk yaa ngi ci julli ga tamit dafay yàq ci julli ga te ab jullit war na koo daw waaye loolu suba ci waxtu lay doon incha allahu wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Vous écoutez Walfadjri. ginnaaw bi nga sitaane vidéo ba pare fekkee abonné ko na nga abonné kelas bës tous cloche bi video bu dugalee vidéo nga mën di notification yi